dalee na jàmm ci seen xibaaru mbatit ginnaaw bu mu amee ay coow yu jib diggante bërki démb ak tey ginnaaw bi ñu siwalee li nga xam ne moo jëm ci wàllu liste ñoo am ci ñetti milliards yi nga xam ne dinañ ko jagleel secteur de la culture bi am na ay coow yu ci jib looloo tax tey ñu dalal ki nga xam ne moo di Abdoulaye Koundoul nekk directeur des arts bokkoon ci ñi xam ne ñoo yore woon lépp lu jëm ci wàllu boobu lay liggéey Abdoulaye Koundoul maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Moustapha. am na nag coow bu jib ñeel SODAV li nga ko jox koppar googul surtout nag jëm ci wàllu ñu ciy laam-laamee ay pel jëm ak lu ni mel ban leeral nga ciy andi. dañuy fàttali rek ne euh, fàttali ko si fàttali bu gaaw si wolof. mooy ne tey jii. SODAV nga xam ne ña fa nekk du rek ñoo xam ne ji dañuy musique waaye ña nga xam ne ñuy nataal ñi ngi fa ñay fecc ñi nga fa ñay def théâtre ñi ngi fa ñuy def cinéma fa am na ñu fa nekk ñooñu ñëpp mu jagleel leen un milliard ne kon képp acteur boo xam ne bii rek bindu na SODAV rek un milliard boobu foofu la bokk waaye jàpp nañ ne it ñëpp binduwuñu nekk soraaf am na ñoo xam ne ñii nekkuñu soraaf te nag dafa mel ni lim bi sax foofu la gën a bëri kon mu ne na nañu fexe léegi xool sous secteur yi moo xam ña nga xam dañuy def musique ñu jagleel leen juróomi téeméeri millions mooy cinq cent millions ñi def théâtre ñu jox leen téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay millions ñi nekk ci cinéma ñu jox leen juróomi téeméeri million ñi nga xam ne dañuy def art visuel ñu jox leen juróomi téeméeri millions ñi nekk ci livre ak édition ñu jox leen ñaari téeméeri millions waaye am na ñoo xam ne ñii si mode ak stylisme yooyu la ñu nekk créateurs yi ñu jox leen leen cinquante millions communicateurs traditionnels ñu jox leen téeméeri millions ñi nga xam ne dañoo nekk ci léeb ñu jox leen fukki million ak juróom ñi nga xam ne ñi si patrimoine lañu nekk muy musée privé yeeg yooyu ñu jox leen vingt millions danse ñi si nekk di fecc mi ñu jox leen euh, juróom fukki millions mu am ñenn ñuy des ñoo xam ne ñii artistes yi nekk ci biir secteur bi te yàlla def ñu nekk am ay laago ñu ne ñooñu affaire bi gën na leen laal waaye ay artistes lañ mën nañoo séddu ci yeneen secteurs yi waaye su loolu wéyee ñu jagleel ñaar fukki millions yoo xam ne dañu koy séddoo kon noonu la ko séddale ginnaaw loolu sous comité bi nga xam ne mooy moo yor musique dañuy dajaloo di waxtaan ñu ne waaw benn milliard bi nga xam ne jox nañ ko Sodaar ne ko ni ko séddale si biir waxtaan am ñu ne ah mais nit boo ko liggéeyloowee du ñàkk liggéey bi am yu mu soxla léegi fan la koy jëlee te Sodaar bokk na ci entreprise yi nga xam ne dañoo lompoñ fi mu toll nii seen doole wàññiku bu baax a baax daan jëlee seen xaalis mooy ay manifestation yu demee te yooyu dakk na amatul kon nan la def ba ñoom ñu mën a def liggéey bi am ñenn ñu ne waa est duñ ko jëlee foofu ñu ne leen bala koy jëlee foofu na laaj ministre ndax ministre bi nga xam ne daje nañu le 9 juin bi passé si comité de pilotage li mu wax di ko dégg mooy xaalis bii nga xam ne mooy fonds covid bi trois milliards yi fas ne yéenewul ñu dindi ci dërëm nan dañ dëggal naa ko waaye Sodav ak yeneen entreprise yoo xam ne ñoom it mbir mi laal na leen dinaa teg benn ligne boo xam ne bii naa leen si jàppale ñoom kon Sodav milliard boobu dërëm duñ ko ci dindi si fonctionnement ndax fa ñuy régler problème lay doon kon loolu mooy li nga xam ne lii mooy am contrairement ak li nga xam ne moom la ñuy dégg ñu job waaru ci lool parce que bi ñu ko déggee daf ñu daf ñu waar ñu yéem ndax ñi ngi woon ci biir comité bi te sax ña nga xam ne ñii ñoo génne communiqué boobu yàlla def na ñoom ñi ngi ci biir comité boobu te dégg nañ li ñu wax looloo tax ñu ne nag dinañu ko leeral pour ñu bañ a yóbbu euh, nit ñi ci loo xam ne lii ah du lu wér du lu wér comme information. jëm ci wàllu secteur danse ñoom dañoo génn ginnaaw bi ñu siwalee rek ne ñoom ñi nga am cinquante millions ñoom dañ ko xeeb. alors yow loo wax ci loolu. waaw li may wax mooy bi nga xamee ne daje nañu comité de pilotage. te ministre bu wax secteur bu nekk ñaata nga am mooy li ma leen waxoon léegi li ma lok dafa ne leen moom nag lii nga xam ne wax na leen ko du loo xam ne daf si tëju. ndax am na réserve boo xam ne bii toll na si juróom-ñett ak juróom. te ñoom am na loo xam ne li bind nañ ko jagleel ko ministre te incha allah altine dana ko jot mu ngi ci taabalam dana ko xool xool nan lay defee ba nga xam ne ñii la ñu wax bu yenoo maanaa mu fekk ci leen ci parce que noonu la ko prévoir woon moo tax bu defoon benn ligne ne lii réserve laa koy def. Hmm. pour ay réclamation ndax du ñàkk alors koppar googu la ñu ngi koy wax ba léegi waaye génnagul euh, ci yéen dem ci loxo artistes yi kañ lay génn ak nan la war a mën a génnee ci lu waaw moo tax sous secteur yi liggéey bi ñu leen jox war ci gaaw ndax ministère moom pare na tey jii sous secteur boo xam ne bii liggéey na ba identifier ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ko yeyoo ba ñu d' accord ci loolu mu jox ko comité de pilotage ministre di joxe vet euh, accord am dañuy fay ndax xaalis bi moom yemb na waaye nag dañuy toog mu leer ànd ak xel mu leer ak mu dal pour que bu ñuy dekkee si ñu xam ne ñuy def lan la parce que xaalis boobu nag dañu koy justifier jusqu'au dernier rond te responsabilité bi nag ministère moom moo ko yor moo tax ñu si def ndànk waaye it bu comité yi gaawee rek ñun ñu gaaw suñu paree rek incha allah ñu fay te comité yi ña fa nekk nag mooy ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo bénéficiaire seeni représentant représentants ñoom ñoo fa nekk. un ennemi invisible. Mais tu le sens, cet ennemi. Il est là, tu le sens. Oui, c'est ça. Combattre. On y va, les gars. Suivez les consignes. Les cas sont là. Le corona tue. À nous deux, Corona. loolu ngeen di dégg benn bande annonce la boo xam ne mi ngi tukkee ci film bi la di mbas mi Covid. ki nga xam ne moo ko def nag moo di Ibrahima Mbaye Thié li mu ko jublu moo di ñax askan wi te ñu fàttaliku ni ñuy xeexee mbas mi la di Covid 19 niki noonu daal di wane taxawaay bu am solo bi nga xam ne kenn ci xeex bi doon na ko ràññeeku muy professeur Seydi dañu ko déglu moom Ibrahima Mbaye Thié man ci ay leeral. gis nañ ni wax dëgg yàlla taxawaayu ñi fi nekk. ngi koy saluer waaye surtout nag ki nga xamante ni moom Sénégal yëpp amal nañ ko njukkal muy euh, la professeur Seydi ndax euh, li mu gàddu gis na lool mook ñi àndal moom ñu gis ko mu am ci taxawaay boo xamante ni euh, ak fulla ak fayda boo xamante ni dalal sunu xel naam gën ñu ñaaxaat waaye gën a dalal sunu justement ñi ngi gis ne film bi dafa génn jamono boo xam ne Sénégal euh, wala boog askan wi sax di li gën a bàyyi seen loxo jëm ci wàllu respecter mesure euh, barrières yeeg euh, soleil masque yu ni mel film bi sax loolu daf koy junj rek maanaam boo koy seetaan am na foo xamante ni am na benn ci personage yi day wax ni les cas sont là les cas la là et le corona tue maanaam cas yi ñi ngi fi te corona bi kat day rey maanaam loolu ak junj la goo xamante ni euh, dañ ko ci dugal waaye wax dëgg yàlla wax yaakaar naa ni Sénégal yëpp ñi fi nekk te ñu xam ñu xam leen ñëpp ware nañ ko waaw ba lépp lu xew wala lépp lu dikk euh, tollook jamono ñun ñu ànd ak sunu xel ak sunu fit ba mën ko dëkku personnage bi nga xamante ne mooy le personnage centrale du film moom personnage bu professeur Seydi la takk fitam jóg ci fin wu film bi ni corona nag nan jàmmarloo ndax corona à nous deux la koy wax maanaam loolu mooy day wane ni euh, du daw te toujours mi ngi ànd ak xelam ak yaakaaram di di gën a fas euh, wopp googu fii la ngi ndar keppee seen xibaaru mbàttiit jërë ngeen jëf ci déglu bi Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Grincement de dents et autres réclamations après la publication de la clé de répartition des 3 milliards alloués au secteur de la culture, eh bien nous recevons aujourd'hui le directeur des arts, Abdoulaye Koundoul, qui apporte des clarifications. Abdoulaye Koundoul, bonjour. Bonjour. Des voix s'élèvent notamment concernant l'allocation d'une partie de cette somme euh, donc à la SODAV pour des besoins de perdium. Qu'en est-il exactement Je ne vous apprends pas qu'il y a un comité de pilotage. Le ministre a décidé d'inscrire un milliard pour la SODAV, mais vraiment pour tous ces inscrits et toutes filières confondues. Le reste maintenant réparti dans les que sont la musique, le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel créatif, les arts visuels, le livre et l'édition, la mode et le stylisme, les communicateurs traditionnels, le conte et le patrimoine culturel, mais aussi la danse, avec une euh, discrimination positive pour les artistes vivant avec un handicap. Voilà un peu la Dans les discussions, il a été évoqué le fait que si la SODAV doit faire ce travail, cela peut impliquer ou alors euh, générer des charges. Comment ces charges devraient être prises en contre dans la mesure où la SODAV et aussi une entreprise impactée. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de manifestation et c'est tout cela la source d'argent pour la SODAV, la SODAV qui collecte, en prélève un pourcentage entre 8, 9 ou pour lui permettre de fonctionner. Alors, dans les échanges, on a pensé, dans un premier temps, qu'il était raisonnable d'en prélever une partie. Mais on s'est tout de suite souvenu d'une directive ministérielle très forte qui disait à tout le monde que sur ce fonds-là, Covid, il n'y aura pas de fonctionnement. Et ça a été réaffirmé et dit lors de la première réunion du comité de pilotage du 9 juin. Le ministre l'a dit en des termes très clairs. Et c'est ce qui nous a poussé à interroger M. le ministre sur question, qui a dit effectivement qu'il n'y aura pas de prélèvement en guise de fonctionnement. Les entreprises impactées, les initiatives avortées, du fait des annulations des manifestations, feront l'objet d'un traitement particulier qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, qui s'intéresse plus aux hommes, aux acteurs, et on doit les aider à dépasser ce cap-là très difficile avec des aides d'urgence. C'est cela. Donc je dis et je répète effectivement qu'il n'est nullement envisagé qu'un rond puisse être prélevé sur ce fonds-là en guise de fonctionnement et de quelque nature que ce soit, ni en guise de perdième. Les comités viennent avec leurs propres moyens, les membres des comités viennent avec leurs propres moyens, ils n'ont pas de remboursement de transport, ils n'ont pas de quoi s'acheter l'eau si ce n'est peut-être de bonne volonté qui mettent la main à la poche pour offrir au moins de l'eau pendant la situation. la là à euh, qui disent que 50 millions, c'est insuffisant euh, donc alloué au secteur de la danse. Euh, quelle est votre appréciation là-dessus Le ministre a été très clair lors du, de la première réunion du comité de pilotage. Lorsqu'il a annoncé la répartition, il leur a demandé de retourner en sous-comité, d'apprécier la situation et de lui revenir aux besoins. Mais ce que le sous-secteur, la danse, a fait, ils ont fait un retour au ministre par courrier en lui demandant de revoir et si possible cette enveloppe-là à la hausse pour leur permettre de toucher le cette question est en train d'être étudiée par Monsieur le ministre, qui leur reviendra en tout début de semaine. Et justement, par rapport à la disponibilité effective de ces fonds-là, comment est-ce que les artistes pourront toucher directement ces fonds Et Ces fonds sont déjà disponible au niveau du ministère de la Culture, notamment au niveau du Trésor. Actuellement, le ministère est dans des dispositions pour pouvoir tout de suite procéder à des paiements si les sous-secteurs font le travail d'identification et de recensement des bénéficiaires. Le ministère paiera. Mais vous êtes d'accord avec moi que le préalable, c'est de définir effectivement la liste des bénéficiaires, une liste fiable, stabilisée, donnant des indications précises sur les bénéficiaires. à partir de ce moment que nous pourrons procéder aux la mesure de façon directe en évitant les intermédiaires pour demain ne pas gérer de petits conflits, de l'argent qui n'a pas pu arriver à bon port ou non. En tout cas, autant que faire se peut, procéder à des paiements directs. Pourquoi ton personnage est ici Pour faire face à qui À ennemi invisible. il est là, tu le sens. Oui, c'est ça. Combattre. On y va, les gars. Suivez les consignes. Les cas sont là. Le corona tue. À nous deux, corona. C'est un extrait du film Mbas mi Covid du réalisateur Ibrahima Mbaye Thié, un film sur la sensibilisation contre le Covid-19, mais qui aborde la question de la responsabilité et de l'engagement citoyen à travers le personnage principal, inspiré du rôle qu'a joué le professeur Seydi dans la lutte contre le Covid-19. Justement, pour nous en parler plus amplement, voici Ibrahima Mbaye Thié. cette période de pandémie, le peuple sénégalais entier, en entier est un peu effrayé. Il nous est venu l'idée de créer ce produit qui montre la détermination du Sénégal, d'un Sénégal uni autour d'un seul objectif. Et euh, c'est en cela que nous, nous, avons choisi, en tout cas nous, à retracer une certaine hiérarchie du Sénégal autour, nest pas, d'un personnage, je pense, aujourd'hui méritant. Je veux parler du professeur Seydi. Il nous fallait euh, quelqu'un, cet homme de, la médecine qui était confiant, tout le temps confiant et restait confiant et nous a nous mis en confiance. C'est en cela que, que nous nous sommes inspirés. Son engagement, c'est en cela également que nous avons montré combien ses propos nous touchait et combien nous, on était encore plus fiers, n'est-ce pas, euh, en tant que Sénégalais, fiers également de, nos hommes, n'est-ce pas, euh, de, la science et de la médecine. Alors, un produit qui sort euh, dans un moment où les Sénégalais sont un peu enclins à, donc, euh, au relâchement avec le port du masque et autres gestes barrières qui sont de plus en plus négligés. Est-ce un petit rappel pour dire que la maladie est toujours là et qu'elle tue Absolument, parce que dans le film, il y a effectivement un personnage euh, important qui retrace cela et qui le rappelle. Il le rappelle, n'est-ce pas, aux, gens qui étaient autour, donc à nous, nous spectateurs, qui le rappelle simplement que les cas sont là et que le corona tue. Donc c'est le message fort et que euh, en face euh, de ce personnage-là, il y avait effectivement euh, le personnage central qui, euh, qui est incarné par euh, un jeune comédien, Baba Karouali, représente symboliquement le professeur Seydi. Effectivement, il, il, était question, n'est-ce pas, de rappeler dans ce film les gestes barrières. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.